nguur gi ñetti fan lañ ko jox pour mu régler problème bi ndax problème bi dañ koo tegal ci taabal ji ba mu gis ni njëgu mburu bi li mu war a jar léegi bi mu gisee ni mburu mi li mu war a jar lii la mu teg ci tànkam léegi nag fi ne liñ soxla mooy mu jox nu prix boobu wala boog bu ñu dañuy taxaw te taxaw bi ñu taxaw duñ ko wutal limite taxaw bi ñu taxaw duñ ko wutal limite sudul jot nañ njëgu njëgu mburu mi parce que mënatuñoo dem ma ne àpp bi ñetti fan la bu fekkee nguur gi deful li ñu wax man ak gars yi ma àndal 14 régions Sénégal yëpp def nañ ko xam nañ boulangerie yi lan lañ capable ak luñ capable ñetti fan yi daal bu fekkee réglé wul problème bi luñ gis nu la ma ne bu laajee gerew dinañ ko def bu laajee mars ak suñuy ànd ak suñu famille ak suñuy liggéeykat dinañ ko def parce que duñ nekk ci rewmi mi du torox fa jafé ji réellement man nañ ni digënté përi fëriñ la ak përi mburu parce que dañoo tëju ci seenum nek xamu ci mburu dara teg seen përi bo nga xamni ne teguñu ko fenn parce que mburu mi ñom biñ défé seen calcul tok ak boulanger yi xam nañ ni ñom ci liñu gese seen bop te gis bo nga xamni jël nañ 50 boulangeries Dakar séddale ko ci 4 départements yi jël boulangerie yu bokkul niveau yebal fa seeni bi biñ xoolee gis nañ ni gramme guro bi 0,95 la war a doon boo ko multiplier baguette 190 grammes bi la lay jox 181. ñi gis ko ba pare ñu waxtaan ba juboo pour wax la nit ñi duñ nitu kàddu waxtaan ba juboo ak ak directeur de commerce bañ yaakaar ne buñ yeggee ci ministre bi rek dañuy ñëw jàllale mu jàll ñu ñëw ba ci moom mu xool xool génn wuyu téléphone ñëwaat ni noonu envoyé nañ ko fii ak jours. mais bi mu ko waxee ba ba pare leen rek lañ ci kontaan mooy un mois directeur de commerce nee ko madame la ministre xoolaatal li ngay wax lii ñu def deux mois fii ak 15 jours buñ fi ñëwee mënuñu la fi indi leneen xam nga boulangerie yi tëj boo ko dee xool sax dafa tuuti ndax xam nga boo nee 160 la mais dama la ni boulangerie yi nga romb ñuy ubbi jëmmi boulangerie ba moo fa nekk ak ñiy xëy di génn mburu waaye borom boulangerie bi la mu yor ci bor moo ëpp boulangerie bu ko jaayan boulangerie bi du fay ay borom. waaw loolu mooy wax maanaam borom bu ne boo ko lam yor ci bor fayul bu bi fay ngay dox mais ba te aussi tamit wax li xew boulanger mënul dem sans livreur livreur bi tamit nañ ko boolewaale ci mbir mi nit ki ak ans 30 ans di liggéey ak nga dama koy ça c'est pas normal mënul continuer et à respecter, nous. Nous Sénégalais... Il faut tout simplement Banlieue de Dakar. Si nous avons l'angle de l'État, l'État dit que nous avons Je ne sais pas. de Dakar, qu'est-ce que c'est Tout simplement la région de Dakar, Dakar utilise plus ou moins 5 millions de baguettes par jour ou 6 millions de baguettes par jour. Ce gens nous 3 à 4 personnes, donc nous réunir. Moi, de produire farine. défendre leur intérêt té ñun ñoo leen ëpp ñom sa ñun ñu dem kon li warul mëna continuer continuer ak tégaya bi fay dem ci courant bi dafa wara deñ bu ñu nëbbante état xaliss bi mu génné ci Covid bi pour dimbali entreprise yi nako wara dindi su bëggé relance économie bi ba euh, téré Barça wala Barsaq na na jappalé chef d'entreprise ñu jël ci jeune yi moy tax Barça wala Barsaq bi deñ ñu dindi impôts yi ñu tek aussi tamit. effacer impôt yi pour nit ñi mën a def fonds d'investissement bu wér yaa ngi dégg mbir mi du du du du du du fariñ bi ñuy jaay euh, du mburu bi ñuy jaay kese am na leneen lu nekk ci ginnaaw ñoom nag seen lëb boobu ñu teg mënul dem sans ñun te ñun ñoo ko war a doxal nag